أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على أهله حق قدره ومقداره العظيم بوك طالبي بوك أمد جامبي suñuy soppe suñu xarit ak képp ku ñuy suivre يوتيوب chaîne YouTube bii di Mystique 5995 TV man sëñ abdullahi njaay ñëw ak yéen ca lu ama ama ama am solo tey de bisu àjjuma ñoo ngi leen di wax mu barak di leen balu xaq di leen ndokkeel su ko defee nag secret mu bëgg ñëw dafa jëm ci saar bii di suratul Juma tey nak ci suratul jumaa lañ leen di baaxi njëriñ ginnaawum njëriñ bi ma nga xam ne joxoon naa ko si ay jamono nga xam ne yaa ngi bind saar bi bisu àjjuma ci fajaru àjjuma wala wa ilaa nga bind ko suñu jullee jumaa ba pare wala wa ilaa nga bind ko ci tàkkusaanu àjjuma maanaam njëriñ boobu nekkoon da ngay bind suratul jumaa ba'da kulli aaya nga rabbalante kook aaya bii di wa hushira li suleymaana junuudahu min al jinni wal insi wat tayra fa hum yuzaun xaasaa nga teg ci inna haza la risquna ma lahu min nafaat li secret bu wér la boo xam ne képp koo xam ne dangay ngay tukki wala nga bëgg sa jëflanteeg nit ñu yomb wala nga bëgg xaalis yomb la ak bayre gi da koy def ginnaaw secret boobu nag ma maye woon tey ma joxaat leen yeneen ñaari secret ci suuratul jumaa benn bi ci jiitu dafa jëm ci képp koo xam ne bëgg nga bayre ak alal bala nga bëgg borom kër wala nga bëgg jabar beneen bi dafa jëm ci ñi nga xamante ne dañoo yor place te bëgg non seulement place bi dox ñoom ñu dox place bi dox waaye seen place barkeel ba kenn du leen mën a yàqal seen liggéey ñaari secret yooyu laa leen fas yéene ci suuratul jumaa di wax ne ku yem ci vidéo bi na nga aimé te partagé ngir ñi ci jotagul jot ci su boobaa nag lépp luñ ci am ci yiw ak yool yàlla nañ ko bokk i di wax tamit ñi abonné gul ci compte bi abone leen incha allahu rabbi ndax dana ci am solo ak chaîne YouTube bii di Mystique 5995 TV nga xam ne ay vidéo xam-xam yu am solo nga fa secret bi njëkk nag jëm ci ki nga xam ne dafa bëgg am boroom kër ak ki nga xamante ne dafa bëgg jabar muy góor gi muy jigéen gi da ngay fexe bind suuratul jumaxa ci bisu àjjuma ji tey nga koy bind bu yéexee ba yéex buñ jullee àjjuma ba pare rek na fekk nga bind ko su boobaa nag dangay fexe bind suuratul jumaxa bax da kulli aaya nga ràbbalante ko ak zuyina linnaas xubbu shahawaati min nisaa ila axiril aaya ak zuyina lillazina kafaru maanaam da ngay ràbbalante suuratul jumaxa ak zuyina linnaas ak zuyina lillazina kafaru ñaari aaya yooyu ngay dugal ci biir aaya suuratul jumaxa su ko defee boo ko ràbbalantee ba mu yegg nga daal di wut ndoxu taw boo mënul am ndoxu taw nga wut ndoxu géej ndoxu teen ak ndoxu robinet ñetti ndox yooyu moom c'est le minimum ñetti ndox la yoo xam ne moom nga koy booleel ndoxu robinet ndoxu géej ndoxu teen su fekkente ne am nga ndoxu taw nag dolli ko ci muy ñeenti ndox su boobaa nag day gën a am doole boobaa jooni jooni lay doon lii képp koo xam ne bind nga saafara bi boole kook ndox yi ma wax wut parfum sans alcool ñeent yu bokkul wala ñett yu bokkul nga def ko ci biir wut suufu jumaa waaye suufu jumaa bi da ngay bàyyi comme bisu àjjuma comme tey bu ñu ñi jullee bay avant nit ñi di ñëw nga tibb ci suuf si tuuti bu nit ñi jullee bay dem nga tibb ci suuf si tam tuuti suuf soosu nga koy booleel daal di ciy def sungufu wër soosóor ak béréwél ngel lii képp ku ko sangoo moo xam góor la wala jigéen da nga am bayra góor ak jigéen ak ku munti don ko sangoo da nga am bayre góor jigéen da nga am wërsëg te ku ko sangoo ajjuma comme nga tàmbalee ko bisu ajjuma ba ajjuma ji dellu si waat nga sangoo ko tamit au lieu de sept jours huit jours lay doon incha rabbi bu ci yàlla àndee da nga borom jabar joo doon sàkku da am ci kàttanu yàlla ci num gën a gaawee nag jooni jooni li may wax defi gis alxuraan ju seet la te te secret bi secret bu la bu amul demal ma dikk beneen secret bi ma ciy maye ci nga xam dañoo yor place dañuy bind suratul jumaa si bisu àjjuma waaye boobaa dañ koy ràbbalante ak lii laa fi xuraysh maanaam suratul xuraysh lañ koy ràbbalanteel ba suratul jumaa bi yegg baada kulli aaya da ngay dugal suratul xuraysh su mbind mi yeggee nga wut comme ni suufu jumaa wut suufu marché wut sungufu béréwél ngel ba tey ak wasoosóor ak suufu dimbali ak sungufu dimbali nga boole lépp def ko ab xàmb su ko defee nag def ci parfum sans alcool juróom-ñaar yu moo ci gën defaale ci tamit xorom polle ak suukar xorom lii incha allah rabbi képp ku ko jël yor place di sango. sangoo boole ceeg tamit di ko wis place bi liggéey ba dana barkeel béréb ba dana barkeel loo jaay mu jar nit ñi danañ la wuy si foo nekk rek di fa liggéey ba dana dox te da nga ci am yokkute ak naataange te kenn du la ko mën a yàqal du nit du rab du jinne du liggéey bu bon lii maa leen ko baaxee ci suratul juma wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala